nekkoon ci wetu enseignant yooyu nga xam ne dañ leen ne maximum ñaari at de bénévolat ngeen di def ñaari at yooyu nekk huit ans dix ans plus de dix ans pour ñenn ñi ñu ne non bu ñu buggee njàng bu baax mais jàngalekat bi foog ñu former ko foog ñu fay ko. c'est pas parce que case des tout petits doomu Macky Sall demu fa doomu ministre nekk en demu fa doomu député nekku fa doomu xawma borom barke yi nekk Sénégal doomu préfet ak gouverneur nekku fa que ñu war fa bàyyi jàngalekat yoo xam ne amuñu formation kenn fayu leen. Mhm. donc cinq jours yi ma njëkk def. Mhm. maison d'arrêt et de correction yu Tambacounda. c'est parce que dañoo àndoon ak ñoom ñu xeex ko xeex boobu nag. yóbbu nañu garde à vue gendarmerie fanaan nañ buntu euh, buntu gouvernance fanaan nañ euh, buntu agence nationale des cases des tout petits fanaan nañ place de l'obélisque tëj nañ ñu xaw ma commissariat plateau ak ñoom seen mhm. mais tey jii nii am na lu ëpp junni jàngalekat yoo xam ne dem nañ formation ñu ngi fayeeku payoor ginnaaw yàlla xeex boobu la mun naa continuer ah. lim ah. Mm-hmm. Babacar dafa am solo ma ma wax la tamit ne inscription sur les listes électorales yi bindu bi mm-hmm. bi mu commencé ñun yóbbu nañ état du Sénégal cour suprême mm-hmm. pour ne condition yi état du Sénégal fixé ngir bindu en réalité c'est pour fexe ba ndaw yi bañ a bindu parce que ndaw réew moo gis day bëgg a coppite yóbbu nañ état du Sénégal cour suprême mais balaa yi ren daaw yóbbu nañ état du Sénégal cour suprême bi ngir wax cour suprême na enjoindre. mais loolu est-ce que am na maa ngi ñëw di nga comprendre fan laa jëm ngir mu enjoindre maanaam mu wax état du Sénégal ne ko nañu def ay test de dépistage yu doy amuñu si ndam yóbbu nañ état du Sénégal ngir ne ko déedéet munoo tëj. marché Sénégal daaw yaa ngi di fàttali préfet jël benn dogal. Mm. ne dañuy tëj marché Sénégal xaw ma juróomi fan. d'accord mais Auchan dina continuer dox. Mm-hmm. ñu yóbbu état du Sénégal foofu. Auchan ubbi na Tivaouane diggante woon marché bi matul junni mètre maanaam 1000 mètres. Mm-hmm. ndaxte loi loolu la wax amuñu ndam xam nga loolu lan laa bëgg wane foofu. Mm-hmm. mais ñun nekk ñu rek di manifester. dëgg la dañoo saisir les cours et tribunaux. waaye xam nga li am. boy noot aw askan. ci wàllu koom foog mu ànd ak nooteel ci wàllu yoon yoon boo xam ne d'accord day sàmm nooteel bi et donc euh, yoon loolu ngeen bëgg a wane ci seeni combat ñaar la ñu bëgg wane uh-huh. benn bi wane ne ñun defuñu rek manifestation parce que lu mu bon bon bon bon diggante deux mille vingt et un euh, deux mille vingt ak ren saisir nañ cour suprême juróomi yoon ñu ñu laaj mais mais justice bi xam nañ nu mu tëddee kon ñun bu ñu kenn wax ne yéen manifestation na ngeen di def bu fekkoon yoon mu ngi doon def liggéeyam kon ñun génn bu ñuy génn daanaka dina wàññee waaw léegi ci loolu loolu tamit dafa am solo que problème bi ñu réew mi am dëgg dëgg dëgg nekkul problème mu yoon parce que yoon <laughs> ci ab réew dafa am triple fonction de régulation régulation économique régulation politique régulation sociale est-ce que du ci yoon suñu yoon ci boppam moo lompoñ moo waral problème yi ñu am yëpp ñu am ko dans tous les domaines Momar ci la bokk ci la bokk am na fi ma d'accord ak yow ndaxte jàpp naa ne sa laaj dafa am euh, lu muy wundu mais am na foo xam ne mënuma si d'accord à cent pour cent xam nga naka laa koy méngaleeg mhm. tey jii nii bés boo amoon baaraam maanaam panari di nga foog ne li gën a am solo ci yaram mooy panache <laughs> waaye bës boo amoon taab ci pokotaan di nga foog ne amul dara lu gën a métti taab bés boo amee sa bëñ muy métti di nga ne wuu bëñ moo bës boo amee leneen ak leneen mm-hmm. voilà dama jàpp ne réew tamit noonu la mun nga jàpp ne yoon moo ëpp solo <laughs> waaye waaw lijjantil yoon mekke faju mu ngi ñëw bës boo feebaree nga dem hôpital gis hôpital nu mu demee di nga ne hmm, est-ce que du faju moo ëpp doole kon mbir mi en fait dañoo war a saafara ndoo lépp yoon effectivement am na jafe-jafe bu am solo bi ci nekk. mais même boo waxee yoon xam nga lu tax mu fondamental. waaw même faju boobu ngay wax. waaw parce que tant yaa ngi wax am na ñoo xam ni luubal nañu alalu askan wi. waaye ñu ngi leen di bàyyi ñuy doxi seen soxla dem di ñëw. Mhm. loolu bu amoon ci réew mu am yoon du demee noonu. mbirum koom-koom itam ni ñuy gënalee ñenn ñi ci ñenn ñi. loolu itam bu amoon yoon loolu du am. waaw coow yi am aussi. yëngu-yëngu politique mu tax réew mi xaw a biime wala réew mi tardé ci jéego yu mu waroon def loolu itam bu yoon doon doxee normalement loolu yëpp du am. waaw mais Momar ba ci xeex bii ngay xeex yow lu ci ëpp ci yooyu xeex bu yoon lalu woon ci réew mi problème yooyu du am ba mu jaral la ngay génn ci bedd bi di xeex yu lay. jàpp mais Momar yoon mun na dox ba pare gouvernement du Sénégal wala président de la République décider ne day signer accord.